ma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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sunu mbokki groupe M-Media groupe Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaara di leen dokkeel di leen baal xaq di leen ngeen baal ñàq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te nangul ñu suñuy jaamu yàlla eh, di siyaare ñëpp nag di jël siyaar boobu rek ak nuyoo bi di ko teg ci loxool kilifa ak jataay bi muy Cheikh Abdul Ahad Mbacké ibnu Cheikh Babacar Mbacké mu jottali ñu ko mbooleem mbokk yi nga xam ne yi ñoom la ñu bokkal liggéey bu sell bi Eh, di ndokkeelit eh, suñu mbokk yi nga xam ni yi naka jëkk ñu ngeen ci liggéey bi di ci bay seen waar saa su ne waaye tamit ñu gën koo feddali gën koo dëgëral gën cee wone seen pasteef ak seen ak bëgg liggéeyal islaam liggéeyal cheikhul xadim muy suñu ñaari mbokk yi nga xam ni eh, gën nañoo fisat ci liggéey bi gën ci yéen eh, wanewaat seen yéene gën cee wanewaat seen bëgg-bëgg muy muy suñu eh, xarit eh, jëwriñ Cheikh Mourtada Badiane Touba Ñaxab ak sëriñ bay Diouf ci ñaari émission yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla indi nañ ko ci groupe bi mu nekk ci lu bees waaye tam mu nekk loo xam ne lii sunu yaakaar gën na cee dolli bu baax waaye tamit gën nañu cee dimbali bu baax ci yokk suñu liggéey bi nga xam ne bii mënuñu liggéey ci biir liggéey bu am solo bii ndaxte bi ñu tàmbalee liggéey bi rek ak niñ ko tàmbalee danoo daal di yëg ci suñu yaram ne ñun kon am nañu ak ko bu baax a baax ay jëmm lañu yoo xam ne wax dëgg yàlla xañ na ñaari bis yooyu ñoo ngi ci doon am ay jafe-jafe ci kan moonu koy taxawul ndax booy xool waaye wax dëgg yàlla macha allah groupe bi yàlla dafa def tawfiix yi eh, wàllu yooyu wàllu kooku muy wàllu xam-xam bi wax dëgg yàlla jëwriñ yu baree bari ñu ngi ci biir yoo xam ne yi mën nañ koo taxawee xañ na kon fekkee ni ab jafe-jafe amoon ci rek maanaam xañ na loolu moo war a lan sabab sax waaye it eh, nit moom eh, booy xool rek ku nekk la nga xam ne lii moom la la yàlla cërale rek moom ala kulli xaal saa bu jotee rek maanaam loola da nga jey daal di nekk mu yomb lool jàpp ni lool ñu sant ci yàlla bu baax a baax nag gën cee dolli ci yaakaar di ñaan yàlla gën leen a taxawul gën leen a dëgëral bi jay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa ginnaaw ziar beeg nuyoo beeg di dalalit gan ñi nga xam ne ñi xañ na dab si nañ liggéey bi euh, ñu jéem a tàbbi ci wàllu laaj yi rek su ko defee laaj bi ñu fi jëkk am tey mu jóge ci soxna Cuba Njaay ñu di ko ndokkeel bu baax di ko ziyaare di ñaan yàlla mu gën koo dëgëral gën koo jàppale ndax saa su ne moom itam day nekk ab soññ ci ñun dañuy bëgg ci moom ci yittewoo goo xam gi moom la yittewoo diine moom la bëgg lu baax ba tax na lu bare bare mi ngi koy def ci lu baax waaye tamit di leerlu lu bare bare ci yooyu muy def ngir lépp loo xam ne lu ko ci lënt la wala mu ngi koy defee noo xam ne ni xañ na defi nu wartu demee noona mi ngi koy leerlu mu doon lu am solo nag ndaxte li yàlla wax rek loolu mooy lim nu digal ñun ñëpp moom yàlla ndax dane fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuuna yàlla dane lépp loo xam ne li xamu ko rek ci seen wàllu àdduna ak seen wàllu diine na ngeen ko laaj boroom xam-xam yi te eh, yàlla def na ci ay boroom xam-xam yoo xam ne ci àdduna bi ci kaw suuf lépp loo xam ne li lu lënt ci bopp jullit bi la rek bu dee ci wàllu addunaam la bu dee ci wàllu diineem la rek su ko laajee yàlla mën naa dogal des na ca mën a gëstu ba am luñ ca mën a xam ci nan lañ cay war a taxawee kon soxna si tey laajam bi mu ngi jublu mu ngi jëm rek ci wàllu koor koor doon lu am solo loo xam ne lii Euh, koor gi nga xam ne gii mooy kooru farata gi te yàlla faratal ko ci ñun mu doon wenn weer ci at mi doon farata joo xam ne jii dafa war ci nun nga xam ne ku ko man te amoo ci lenn ngant da ko war a def soo ko defee yàlla defal la ci ab yool ak i xiiwal ak i leer waaye itam ku ko bàyyi te tey ko te amoo ci lenn ngantu lu sharia nu nguy ka ko ka def loola da cay am ay bakkaar muy koor ak farata gi waaye tamit nanu xam ne soxna si li mu wax ne moom dafa tàmm di woor weeru rajab ak it eh, di woor fukki fan ak juróom ci aw baraxlu waaye tamit eh, di woor eh, ñaar fukki fan ak juróom ñaar ba tey ci saabaan waaw muy laaj daal ne loolu daal da koy def te doon ci gën a bëgg am ak leer ci loolu war na wala warut waaw xam naa war na sax bu ñu koy wax mooy dañ bëgg nekk loo xam ne li farata la waaye dañu naan war na ndax lu baax la loo xam ne lii ab jullit bu ko dee def da cay amee tawfeex ju rëy rëy waaye kooru euh, coobare wala maanaam mën ne ak naafila la su ko defee dañuy wax soxna si ne ko yuwaddu siyaamu ixda al ibaadaati allati sharaa allahu taala fiiha tatawwua dañu dañu ne koor dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne yii yàlla daru ca teg maanaam da ca def yoonu maanaam mën nañ cay coobarewu di woor ay koor yoo xam ne yii doonut koor ak farata maanaam muy koor ak naafila maanaam jaamu yàlla yi nga xam ne daal yàlla da na ngeen ci jaayante maanaam di ca naafi la moom koor moomu daa bokk ci jaamu yàlla yu nga xam ne yii mën nañ ci def ay naafi la wa hiya ibadatun azimatun jalilatun te ne jaamu yàlla ci koor nag di ko defee koor ne ne ak jaamu yàlla gu màgg-màgg la gu rëy rëy la wasilatun azimatun li taqarrubi minallahi taala te nee na it di woor koori la day aw yoon la wu màgg woo xam ne wii mën naa jegañal jaam bi koy def boroomam yàlla maanaam mu jege yàlla lool nekk ab xaritam nekk ab soppeem koor ci li gën a gaaw jegeñal jaam bi boroomam ci la bokk waxat waradat fi fadli siyaami E, fi sunnati nabawiyati al adid min al ahadithi ka xawlihi sallallahu alayhi wa sallama inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayyaanu yadxulu minhu saaimuuna yowma alqiyaamati laa yadxulu maahu ahadun xayruhum yuqaalu ayna saaimuuna fa yadxuluuna minhu wa iza daxala axiruhum uxliqa falam yadxul minhu ahadun ne nene koor bokku na ci ak am soloom ne ne bu ñuy xool xadiisi seydina muhammad yi bare bare bari dafa wax ci koor di wax lal koor mu bokk ci xaddis yooyu xaddis bii ma doon wax muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ajjana tey am na bunt boo xam ne bii rayyaan lañ ko tuddee rayyaan la bunt ba tudd ne na bunt boobu yàlla da koo def ca aljana ngir jagleel ko ñi nga xam ne ñi ay woorkat lañu fii ci àdduna ay woorkat lañu fii ci àdduna bu bis penc ba bunt boobee ñi doon woor fii rek rawatina koor ak naafila ga ne na ñooy moom bunt boobee te ne na bunt boobee kat la tax yàlla jagleen ko jagleel leen ko mooy day yaatu yaatuwaay boo xam ne bii maanaam du xat duñ fa nekk di raj-raj loo ñoom workat yi rek ñoo fay jaar mu yomb ci ñoom lool te su dégg ak woote goo xam ne gii ku bokkutan ci ñi nga xam ne ñi danga koor gu bari fii ci àdduna maanaam doo mën a wuyu ca woote boobee dañu dégg ko woote ne ay na saa imuuna an nañ ana ñi woor bu ko defee ku bokkan ci woorkat yi rek yooyu mën a wuyu suñu wuyoon ñu ne leen acca daldi leen jaar ci bunt bii daldi dugg biir aljanna woorkat yooyu suñu jaar ci bunt boobu di dugg biir aljana ba ñu jeex ba jeex ñu daldi di ub bunt booba nga xam ne keneen du fa jaar koo xam ne kii bokkulaan ca woorkat ya ba tey dafa xam ne as sawmu yuaddu min mukaffirati dunubi qaala sallallahu alayhi wa sallam fitnatu rajuli fi ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarihi tukaffiruha salaatu wa sawmu wa sadaqatu te ne ne koor itam dafa bokk ci li nga xam ne lii maanaam day dindi ay bàkkaar maanaam day tax ki nga xam ne kii day woor koor ak naafila googu bu defee ay bàkkaar yool ba muy amee ca koor googee day dem ba day ëpp bàkkaaram yu daal di dindi bàkkaaram yooyu sayduna muhammad daal di waxaan ne euh, fitna ji nga xam ne jii day nit ki mën na koo am ci njabootam ak ci alalam ak ci ay doomam ak ay dëkkandoom nga xam ne maanaam nit ki ay dëkkandoom mën na am ci mën na mënal mën na leen amal ay àq yoo xam dina ko indil fitna ah, alal ja itam mën naa ca amee mën na caa amee ay xàq yoo xam ni dina ko indil fitna waaye doomam yi itam mën na caa amee ay xàq yoo xam ne dina ko indil fitna waaye ay dëkkandoom itam mën na caa amee ay xàq yoo xam ni mën na ko indil fitna daal ne ne fitna yooyu daal bu fekkee ne dafay nekk ko xam ne kii kuy julli lu baree bare la day julli julli naa fi la ginnaaw julli farata yi waaye tamit di woor koor gu bare bari ginnaaw koor ak farata gi waaye tamit di saraxe lu baree bari daal nee fitna yooyu yëpp bu ci nekk rek nan koo topp euh, julli googu ak koor googu ak saraxe yooyu muy saraxe mën na ko dindi ci moom ba tàggoo ak moom mu daal di waxaat ne wasiyaamu yaqi muslima minal inrimasi fi shahawaati wa tartafiu bihi darajatuhu fil jannati wa huwa ahadu wasaili shukrillahi taala ala niamihi te ne it e, moom koor day fegal jullit bi ci nuur ci biir bànneex yi xam ne ne e, nit ki bu wooree ba mar wi jàpp ko e, xiif bi jàpp ko benn bànneex boo xam ne bi mën na koo tàbbal ci def lu neexut yàlla rek maanaam dootu ko am maanaam dootu am bànneex yi di def len loo xam ne bii ak mooy yàlla la te koor googu muy woor itam eh, dara jaam da cee gën a yëkkati ko ca kawe ca biir àjjana te it moom koor mi kat benn la ci yoon yi nga xam ne yii eh, yooni sant yàlla la ci xéwal yi nga xam ne yii moom la yàlla di defal jaamam ñi te it waxam na ne wasiyaamu siyaaxatun faatiyaadu siyaami wal mudaawamatu alayhi sifatun athna allahu taala alayha fi alqur'ani alkarim fa wasafa alsaaimina bilsaaixina fi qawlihi taala altaaibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaaixuuna alraakicuuna alsaajiduuna alamiruuna bilmacrufi wannaahuuna an ilmunkari walxaafisuuna li xuduudillah wa bashiril muminin ne ne koor itam nag siyaaxa la mooy doxantu doxantob jaamu yàlla la cib jullit moom mi nga xam ne nii day bari lu muy woor maanaam mi ngi mel ni kuy doxantu ci doxantu boo xam ne bii da nekk ci lu neex yàlla la maanaam koor la ci jublu ne bu ko defee nit ki bu tàmmee koor sax ci ne na tàmm koor googu ak sax gim ci sax di ko def ne aw melokaan la jikko joo xam ne ji maanaam yàlla da caa tagge ca alxuraan ña nga xam ne ñii dañ caa sax mu daldi ne ñi nga xam ne ñi ay woorkat lañu kon ñoom la tudde as-saa'ixiina ci biir aaya bii ma bëgg a wax ne ne yàlla dafa tagg ñii muy at na ñi nga xam ne ñi dañuy dëkk di tuub al ñi dëkke ak jaamu yàlla alxaamiduna ñi dëkkee sant yàlla daal di wax assaa'ixuuna ne nañ maanaam ñi nga xam ne ñi dañuy woor lu baree baree bare arraakiuuna assaajiduuna ak ñi nga xam ne ñi dañuy sax ci di julli di rukkoo ka sujjóot lu baree baree bare al amiruna bil maaruf ak ñi nga xam ne ñi dañuy digle lu baax wa naahuuna anil munkar ak ñi nga xam ne ñi dañuy tere lu baaxut lu neexut yàlla walxaafisuuna li xududillahi ak ñi nga xam ne ñi dañuy sàmmanteeg tere yàlla yi ba duñ ko def ne na ñi ñépp yàlla da leen a tagg ci biir aaya bi su ko defee baatab a jooju mu tudd ne ne assiyaaxatu rek buñ ko doon wax ci fa mu cosaanoo maanaam laata lislaam di ñëw moom assiyaaxatu mooy maanaam di tukki am ak jot maanaam di tukki tukki boo xam ne bi feexal saw yaram ak feexal sa bakkan ak euh, di wër euh, ay béréb di fa bëgg loo fay xam ci wàllu àdduna bi ak it du tey du doon loo xam ne danga fay dem di sàkku ji alal wala nga di fa fàggu dara waaye daal ak wër la goo xam ne gi daal mën nañ ne maanaam lislaam laataa lislaam di ñëw daal maanaam daanaka amutoon solo waaye dana nag mu ne assiyaaxatu fil islaam ah, mu ne rabatal islaamu assiyaaxata bil ibadati moom siyaaxatu boobu te doxandu boobu bi lislaam ñëw moom da yeew ci ak jaamu yàlla fa aw jaba safara awi siyaaxata li adaa rukunin min al islaam wa huwa al xajju wal umratu ne ne bi ñëwee doxantu ko nga xam ne gii nit ñi dañ doon jël seeni alal rek di ko doxantu di wër adduna ci loo xam ne lii daanaka amul solo yàlla dafa waral tukki dafa lislaam bi mu ñëwee yàlla da caa daal di waral tukki googu muy siyaaxatu googu ngir joxe ci euh, benn ponk boo xam ne bii dafa bokk ci ponk lislaam yi te mooy aj maanaam ñu mën ne ko nit ki bu fekkee ni euh, mën naa aji ca charte yi nga xam ne yi moom lañ wax bay waaj di dem Makka rek mën nañ ne ma def def asiyaaxatu waaye bu dee umra la itam te muy xeetu aj goo xam ne gii moom comme aj moom eh, dañ ko wutal ay weer yoo xam ne yi ca lañu war a aj su jàllee aj ak moom doo ko mën lu dul beneen at ba ca topp waaye umra moom at mi yëpp saa boo ko mënee boo ko ak aj comme ni ñuy defee aj lañ koy defee waaye dañ ko yémalewut ci wenn weer ci at mi maanaam weer woo ko mën a defee rek baax na nee na ñaar yooyu kon ku ci waaj ngir di ci defi benn wala nga boole lu ñaar ñëpp dañu jàpp ne yaa ngi def as siyaaxatu xaala sallallahu alayhi wa sallam siyaaxatu ummati yi al jihaadu fi sabilillahi seydina Muhammad dana wax dafa wax ne eh, doxantob sama xeet daal ci baat boobu ñu tudde siyaaxatu ne ne sama xeet moom nañ ko defe mooy eh, def loo xam ne lii lu neex yàlla mooy maanaam xeex ci yoonu yàlla maanaam def lu baax te yàlla tax daal moom lañuy def ci dox ko nga xam ne gi moom la dox di ko asiyaaxat ba tey ci laajab soxna si rek mucc ba ñoo ngi ci wàllu koor gi ba tey euh, dafa yaatu lool bu ko defee ne ne wa ahamu maqasidi siyaahati fi l islaami takunu fi daawati ilallahi ne nag bu ñuy wax asiyaaxatu ci diin ci lislaam lañ ca jublu dëgg dëgg mooy eh, nañu ko defe ci woote jëmale ca yàlla ma ne daal jullit bi moom fu mën a aw ci pàkki suuf yi di dem ci réew yi di dem ci béréb yi fu mu fa dem rekk na doxantu boobu na nekk doxantu boo xam ne bii dafay ñam fa fekk da leen di woo jëme leen ca yàlla wa tabliiril an nuur allazi unzila ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tayit na fay jot li ca doxam googa muy dox leer gi nga xam ne gi moom la ñu wàccee ci seyduna muhammad wa huwa wazifatu rusuli wala anbiya'i dana leen jot leer googu nga xam ne gi nag moom la yàlla wàccee ci sayyidina muhammad maanaam ne ne moo doonoon métieram ñi nga xam ne ñi ñoom lañu ñu yónni ak ñi nga xam ne ñi ñoom lañu takkal garaat yi ab yonent kon kii doxantu daal ñu wax ñu koy wax ñu koy dox googu ñu koy tudde as yaaxatu daal ne ci fii ci lii la ko war tënk su ko defee rek wa axiran fa inna min mafhumi siyaxati fi l euh, safar asafar safara li taamuli badii xalqillaahi dane tamit kon ci ab gàttal rek bokk ci lu ñuy dégg daal baatab asiyaaxatu ci islaam te mooy doxantu boobu may wax noonu nii ne mooy tukki ngir di wër ci kaw suuf si ba tey ngir di di xalaat di xool di jàngat eh, yàlla mbindi mbind mi nga xam ne mi moom la bind maanaam li bind lépp ci àdduna nga xam ne bërëb boo dem rek di nga fa gis lu bees ci yow loo xam ne lii mosoo ko gis mu doon kéemaan ci yow ne tukki boobu da nga ko war a teg ci di xalam di xalaat ci kéemaani yàlla yooyu nga xam ne yii moom la def ci kaw suuf def ko ci béréb yi def ko ci réew yi waaye tamit ak di bànneexu ci euh, bind gi nga xam ne gi yàlla da ko bind àdduna bi ni mu ko bindee ni mu wuutee ni mbir yi wuutee ni mbir yi ëppaatee ni mbir yi soraatee loolu mu ne ngay xalaat ci kéeman yooyu muy dugal ci sa xol ak leer nga cay bànneexu daal ne ne moom lañu ñu war a jublu ci euh, euh, tukki googu nga xam ne gii moom lañuy tukki di ko doxantu ndax ne ne li yakuna dalika baaisan lin nafsi al bashariyati ala quwati al iman bi waxdaaniyati llahi taala wa li yakuna ala adaai waajibaati al ndax ne boo dee wër noonu di dem di gis kéemaane yàlla yi di ca yéemu ne loolu day nekk loo xam ne lii dina la dimbali ci maanaam sa ngëm yàlla gën a dëgër sa ngëm yàlla gën a sax waaye itam dinga nga gën a xam ne yàlla mi moom jën jëm la joo xam ne ji kenn melut ni moom kenn mënut li man kenn xamut li mu xam tey dina doxantu boobu dina tax ki koy def mu dimbali ko ci muy góor góorlu ci lépp loo xam ne lii lu ko war ci wàllu dund gii muy dund fii ci àdduna mu di ak jaamu yàlla ak li ñu lijjanti ci wàllu àdduna bi te diine maye ko yépp mu mën caa taxaw ngir loola mu mën koo lijjanti kon daal ne ne fas yaamu laa misla lahu ne ne koor daal am na solo am solo goo xam ne gi daanaka mën nañ ne euh, lenn melutut ni moom ci wàllu jaamu gi ci wàllu bakkanam nit ki te mm, wa zalika li wurudi hadha al fadli fi wasiyati nabi sallallahu alayhi wa id qaala lahu alayka bi sawmi fa innahu la adalatahu lahu ndax ne ne li tax ñu ne koor mel mën nañ ne daanaka dara melut ni moom ci daraja yu ko weya ngir seyduna muhammad am na kenn ci saxaaba yi koo xam ne kii da ko doon dénk ne ko maa ngi lay dénk daal nga góor góor lu ci di woor loo mën a woor ndaxte ne ne koor kat la ca nekk ci ay daraja ak leer daanaka amul genn jaamu yàlla goo xam ne gii ma nga ca te itam eh, waxat adafallahu asiyaama ila nafsi yii te ne ne koor ci boppam bokk na ci ak amam solo yàlla da ko taf ci boppam wa rafa xadra siyaam eh, te it darajaay koor yàlla da ko yëkkati lool ndax yàlla dafay wax ci benn xadiisun xudsi yi ne kullu amali bani aadama lahu illa sawma fa innahu lii wa ana ajzi bihi ne daal doomu aadama lu mu mën a liggéey lu mu mën a def rek maanaam loola dama koy bàyyi moom mu yor ko ba la ma ko ca war a fay suma ma moom ma fekk ba mu des koor ne ne koor moom eh, man maa koy jël téel ko sama bopp di ca xool la nga xam ne lii moom laa ca war a fay ka nga xam ne kii moom laa ko war a fay foofu daal dafa kon la mu fay bu ñu dégg wax ci mooy dane daal doomu adama bi lu mu def mën naa ko boole yeneen i malaaka yoo xam ne ñooy ommat di ko yóbbul pay nga xam ne gii moom laa koy fay waaye ne bu leen koor la man maay fayal sama bopp man yàlla maay fayal sama bopp jaam bi nga xam ne bii dafa saxoo di koor dafa saxoo di woor xaala sallallahu alayhi wa wal quraanu yashfaani lil abdi yawmal xiyaamati seydna muhammad daal di waxaan koor day ak alquranul karim ne ne su ba dañuy ramm jaam bi nga xam ne bii saxan na di jàng alquran ak doon bari lu mu woor koor yi naafila yaqulu siyaamu ay rabbi innahu aw innii manatuhu taama wa shahawaati binnahaari fa shaffi'ni fiihi su bés bi ci ba ne ne eh, koor ni mu amee solo ne koor ci boppam day nekk jëmm daal di taxaw fa konam ne ko ay yow sama boroom Euh, diw mii de euh, ba mu nekkee àdduna man koor maa ko tere woon aw ñam ak ay banneex ca bëccëg ya kon yàlla maa lay ñaan nga dimbali ma tin ma ci jéggal ko defal ko ay teraanga tabañati ko dañ koo topp dara su ko defee ñaan googee euh, koor doon jëmm taxaw fa kanam yàlla di ko ñaan boroomam ñaan googa yàlla da koy nungu su ko defee aji woor joojee daa tàggoo ki njàqare ak i tiis ak i mitit ak tiitaange yi yépp daal dem ca xewal ga kon koor daal am na solo am solo boo xam ne gii luñ ci mën a góor góorlu rek maanaam loola doyut kon soxna si dañ koy wax rek lenn ci njariñu koor ak bés yoo xam ne yi Cheikhul Xadim nafaanallahu barakaatihi tànnal nañu ko ngir ñu mën koo woor maanaam mu wax nu lenn ci njariñu koor waaye tamit waxam ñu ay bés yoo xam ne daal dafay toll ak juróom-ñaari bés yoo xam ne yii day dikk ci at su ne sëriñ bi ne xemmem nañu koo xam ne kii mm, da ngay saxoo di ko woor sëriñ bi daal di ne amma siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardatan bihi wa niama sëriñ bi ne ne koor nag daal lépp loo xam ne lii yow jaam bi yow taalibe bi yaa ngi sàkku ngërëmal yàlla ak xéewale yàlla na nga xam ne koor dafa bokk ca la ca gën a gaaw ci may la loolu mu daal di ne li anna fil jannati baaban laa yaqib fiihi siwa ahli siyaami fahtasib ndax sëriñ bi ne ndax tey ajjana eh, day am na bunt boo xam ne bii kenn du fa jaar lu dul ñi nga xam ne ñii ñoo doon ay woorkat fii ci àdduna mooy xaddis boobu nga xam ne bii waxoon naa ko fee nga xam ne Seydina Muhammad moo doon wax bunt boobu nga ne bii ñii woor ko moom gis nga moom la sëñ bi daal di fii ci ak bayit mu ne bu ko defee lu mel ni koor ak imam Malik sëriñ bi misaal nañu ko ngir ku bëgg koor gu mel noonu maanaam nga di ko woor mooy weer weeru wolof wu teru rek maanaam nga woor ca ñetti fan moom lay wax nii ne ne wa kaana malikun imamuna yu diin min kulli shahrin sawma addi xarfi jiim fa kaana fi tadaifiha lil ashri bi fadlihi jalla ka sawmi dëhri ne ne sunu imam malik moom nga xam ne mi moom lañu wax ne nanu topp am ngërëm ñun fii ci senegal ne ne malik moom lay dafa nekkan koo xam ne kii dafa saxalan weer wu teru rek maanaam weeru wolof wu teru rek maanaam mu woor ca ñetti fan ñetti fan yooyu ne ne bu ko wooree nga xam ne bés bu nekk dañ ko koy fay fay ak ku woor fukki fan kon day mel ni bu wooree ñetti fan yi rek maanaam mooy woor na weer wi yëpp te loolu boo ko def weer wu ne nga woor ci ñetti fan ñu defal la ko fanweeri fan muy weer kon maanaam yaa ngi sax di woor sa diirëb dund di ngay dund ci àdduna sëriñ bi daal di waxaat ne wa raghabu fi sabaati ayaami anil ula taduru kulla ami sëriñ bi ne juróom-ñaari fan ngi daal yoo xam ne yii mi ngi wëndeelu ci at mu ne saa at mu ñëwee juróom-ñaari fan yooyu mi ngi ci biir ne ne borom xam-xam yi xemmam nañu lool koo xam ne kii dangay ngay dàkk yooyu di leen woor daa di ne taa un li zil ka zu rajabin jiimu muharramin waya aho sibi sëriñ bi ne euh, benn fan bi ci jëkk mooy euh, juróom ñeenti fan yi weeru tabaski weeru tabaski ne juróom ñeenteelu fan ba xemam nañu ku ko woor këzu rajabin weeru rajab te mooy weer wi soxna si ne da koy woor ba mu jeex muy Euh, maamu koor wala boog mooy ndey koor kon rajab mooy ndey koor ne na ñaar fukkeelu fan ba ak juróom-ñaar sopp nañu xemmam nañu ku koy woor jiimu muharramin wayaahu ñetti fani tam xarit ñetti fani weeru tam xarit ak euh, fukki fani weeru tam xaritin ne xemmam nañu ku ko mën nga di ko woor wa kahu zil qiadati ya chaabana wa xijjati xud bayaana dana ñaar fukki faneelu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggiw tëbaski bokk na ci bés bés so bés sopp ku bés yi xemmem ku ko woor ya chaabana ak fukkeelu fan ak juróom ci aw baraxlu comme baraxlu woo mu wax ne day weeru day wooru bu matee fukki fan ak juróom mu woor bés boobu ak ñaar fukki fan ya ba tey ak juróom-ñaar waxaa u zil ak juróom-ñetti fani tabaski <coughs> sëriñ bi nee ne fa kullu man fii sawmiha yaduumu fa sa yanaalu kulla maa yarum sëriñ bi nee ne juróom-ñaari fan yi daal képp ko saxal di leen woor lépp loo xam ne di yaa ngi koy sàkku rek yàlla mën na la ko may ci darajaay koor yooyu nga xam ne yaa ngi koy woor bés boobu kon loolu it ay juróom-ñaari bés la yoo xam ne yii mën nañ koo takk téye ko ba ku ko bëgg di ko woor weer wu terawat rek nga xam bés ba nga xam ne bii moom nga cay woor bu ko defee itam ne ne wa raxabu fi sarri chahri rajabi wa misluhu muharramun fal tarxabi ne itam xemmam nañu lool maanaam woor weeru rajab ba mu jeex weeru rajab mooy ndeyi koor waxan naa fee ne euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci ndeyu benn fan la booba waaye fiit it ne ne bokk na ci li ñu xeme mooy boo mënee nga woor ndeyi ba mu jeex wa mithluhu muharramun ne ne itam waxan na fee ñetti fan itam xarit ak fukki fan ya waaye tamit xemmem nañu lool weeru tam xarit wi ku ko mën a woor lépp wa tisu dil xijjati aydan wa kasa jamiu chaabaana faraaxil ma axata ne ne itam waxan na fi juróom-ñaari juróom-ñetti fan yi tabaski waaye itam fii boolewaat na juróom-ñeenti fan yi tabaski ya moom itam ak it maanaam chaabaan boobu itam ku ko mën a màng woor ko lépp itam ne ne moom itam bokk na ci li nga xam ne ñii lii boroom xam-xam yi eh, xemmem nañ ko xemmem loo nañu ko kon daal koor mi noonu muy koor ak naafila luñ ci mën a góorgóorlu di ko def euh, baax na ñu jëlaat yeneen laaj yi ci topp mu jóge ci sëriñ bay Juuf moom itam moo itam mu rotal fi ñetti laaj bi ci njëkk day laaj euh, atteeb euh, liqaam muy taxawal julli day laaj sunna la wala farata la wala lu di atteem daal su ko defee dañ ko naa al iqaamatu sunnatun mu akkadatun waaw am na ñoo xam ne àggale nañ ko foofu mooy sunna la daal soo xam ne si su dëgër la kon liy atteb euh, liqaam daal te mooy taxawul julli mooy sunna la waaye muy laajaat euh, ki nga xam ne kii day julli waaye daa bàyyi liqaam googu mooy liqaamut maanaam moo xam nag bàyyi googu moo ko tey wala tayu ko dañ naan tarkuha la yufsidu salaata walakin haza la yaani jawaazu tarkiha dañ ne kiy julli li xamul moo xam moo ko tey wala tayu ko du yàq julli ga waaye nag du yàq julli ga maanaam deesu ci sukkandiku ci teg daal ne kon mënees na ko bàyyi li gën dal mooy jéem sunna la ki bëgg julli ne def liqaam maanaam taxawal mooy gën ndax ne ne bu bàyyee liqaam googu mooy maanaam def na loo xam ne li rafetu daal lu ñaaw la maanaam defut lu gën daal te wàññi na ab yoolam ndax ne ne liqaam dafa bokk ci màndarga yi nga xam ne yi màndarga yu màgg màgg la ci lislaam ak ci wàllu julli kon daal ne ne bàyyi gi moom moo xam kiy julli moo ko da ko neex mu def ko maanaam da koo tey wala da ko fàtte bu mu ci mën a doon daal du yàq julli ga ndax sunna la waaye duggul ci biir julli gi maanaam duggul ci biir julli gi wa dalilu ala annaha sunnatun wasalaata tasixu fi salaatihi ne ne tegtale ne moom julli e, moom liqaam sunna la waaye tam ak julli mën naa wér suñu liqaamut mooy xadis bi nga xam ne bii Seydina Muhammad daa aman daa gisan koo xam ne kii dafa yàq julli ga bàyyi ca yu baree baree bari Seydina Muhammad di ko wax yooy naa ko def ko di ko ko digal te ba mu koy digal boolew ca liqaam gi nga xam ne gi bokk na ca lam bàyyi woon ne ne li anna nabiya kaana yaqulu lahu ifal kada wa kada walam yazkuril adana wala al iqaamata ma annahu sallallahu alayhi wa sallam dakara alwudua wa istiqbaal alxiblata wa istiqbaal wa arkaan alsalaati walaw kaanat waajibatan walaw kaanat il iqaamatu waajibatan la dakaraha mene nga xam ne dafa bari bàyyi yu bari yu yonente bi gis ci julli ga Seydina Muhammad daa ñëw ne yow mii booy julli defal nangam ak nangam maanaam di ko limal li nga xam ne lii moom la ñu war a def ci ak julli te ne bi mu koy wax yooyu bokk na ca la nga xam ne lii waxu ko ko muy waxu ko del noddu waxu ko del liqaam maanaam waxu ko liqaamal kon te it xam na moom Seydina Muhammad tuddal na ko njàpp tuddal ko jubli gi mu war a jubli xeb la tuddal na ko dal lépp loo xam ne lu aju ci julli ga la ba mu des noddu ak liqaam tuddal ko ponk julli yépp waaye kon ci la ñuy mën a tegtaloo ne kon moom iqaam liqaam yi dañuy àtte ne moom sunna la sax waaye du farata ndaxte bu doonoon farata doon lu war maanaam yonente bi dina ko limaale ci eh, yooyu nga xam ni moo doon digal waajo xam ne ji bàyyi woon yu baree bari ci julli gi ba yonente bi di ko waxaan ne ko booy julli del def nangam ak nangam loolu limaale wu ko ca limaale lu ko ca liqaam beneen laajam bi ci topp day laaj muddatul xaydi maanaam day laaj gis baax maanaam reegal loolu nga xam ne ni maanaam soxna yi ñoom lay dal maanaam euh, loolu ñuy wax baax muy reegal muy dara jooju nga xam ne ji day génne ci ñoom ci ay njaal benn weer ak yooyu daal moom lay laaj Euh, fan la yem maanaam euh, fan la nga xam ne su soxna si dee gis euh, régle boobu nga xam ne dañ naan bu yemee nangami fan lay war a doon daal su continuer di gis deret jooju doonatul règle loolu lay laaj maanaam fan la nga xam ne moom feek mi ngi koy gis maanaam du mën a jàpp du mën a sangu farata du mën a julli du mën a woor fan lay yem ak fan lay àgg ba dootu ko doon nga xam ne dootu ko tere jaamu yàlla yoo nga xam ne feebar lay doon waaw wàllu regal woowu dañ ko naan laa xadda li aqalli ayaamil xaydi regal daal fanam yu néew yi moom amul fenn fu mën a yem maanaam mën naa nekk maanaam soxna si mën na koo gis benn yoon mu daal di jeex takk waaye mën na koo gis lu mat ñaari waxtu wala waxtu wala une minute mu jeex takk ci moom walla mu gis ko benn bis walla ñaari bés mu jeex daal maanaam néew ga daal moom nga xam ne foofu dañ ne lii mooy ci li ci gën a néew moom amul fen fu ñu ko daytal ne fa la yem waaw euh, fu mu ko gisee rek mu daal di jeex rek foofa la yem mu ne wa aksaru ayaamiha taxtalifu bi ixtilaafi anwail xuyad ne ne nag fan yi nga xam ne dañ ne maanaam jàngalekati fiq yi dañ ne mooy fan yi gën a bari ci règle nga xam ne fan yooyu euh, feek soxna si mi gis tàmbali na di gis deret jooju su ko tàmbalee di gis ci weer di ko gis ci weer bi feek deret ji arrêté wut fekk ak aggut ci lim boobu ñi may bëgg a wax nii ne ne maanaam fanam yooyu nga xam ne day bari nga xam ne moom lañu war a topp ba keroog fan yooyu di mat ñuy doog xam ne doonatul regal daal ne ñoom dañ cee wuute ñoom ñi nga xam ne ñii dañuy gis régal te ne ne ñoom ñooñu di gis régal ñeenti xeet lañu wa hunna arbaatun maanaam ñeenti xeet lañu ki ci jëkk mooy te di atu mooy soxna si koy dogo tàmbalee gis manam si koy dogo gis ku ñaari ki mooy almutaadatu ki nga xam ne kii tàmm na ko maanaam gis na ko ay weeri weer ba tàmm na ko xam na ni réglam de deme ñetteel mooy alxaamilu ki ci des mooy <clears throat> ki nga xam ne kii dafa ëmb maanaam dafa tollu diggante ñeenteel bi mooy almuxtalitatu mooy ki nga xam ne kii réglam moom dafa normalut yow bu ko defee buñ ko faram-fàccee mooy ku jëkk ki mooy ki koy dog a gis ne ne saru ayaamiha xamsata ashara yawman ki koy dog a gis daal ne ne bu ko gisee benn rek mu daal di jeex gisatu ko na xam ne jeex na na dem jaamu ji yàlla waaye bu feeg mi ngi koy gis te mëtagut fukki fan ak juróom na xam ne regal boobu jeexagut ci moom kon fan yi ci ëpp ci ki nga xam ne kii eh, da koy doog a tàmbali daal mi ngi yem ci fukki fan ak juróom su ko dee gis ba mat fukki fan ak juróom na xam ne régal ba jeex na léegi bu dereja day ñëwaat eh, feebar la ci moom du ko teree jàpp du ko teree julli du ko teree woor keneen ku ñaareel ki mooy ki ko tàmm nga xam ne gis na ko ba xam moom eh, régal maanaam ñaata fan lay doon kooku dem na ne aksaru ayaamiha in istamarat biha damu salaasatu ayaamin ziyaadatan ala akthari aadatiha maalam tujaawiz xamsata ashara yowman ne ne ki nga xam ne kii da ko tàmm lam ko tàmman di ko gis maanaam da ko doon gis benn bis mu jeex wala ñaari fan mu jeex wala ñetti fan ne ne loo mu tàmme woon di ko na gisee su soppe koo nga xam ne masalan daal mën naa ne ñetti fan la ko doon gis mu jeex ci moom léegi weer wi teru na mu di ko gis ba ñetti fan ya mat mu continuer di ko gis nene ne na tegaat ñetti fan bu ko defee da doon am ñetti fan mu jeex ci moom weer wi ñëw euh, ñetti fan ya mat mu continuer di ko gis ne ne feeg mi ngi ko gis ba kera muy mat ñetti fan na continuer xam ne règle la su ko defee euh, muy continuer noonu nag jéem dara jë dañagut jeexagut ba jàpp rek ne man euh, fan yi ma ko doon gis jeex na waaye feeg matagut fukki fan ak juróom moom itam na xam ne réglam dafa soppeku jóge ca nam ko aada woon muy ne naa jox naa la misaal ne la ñetti fan la ko doon gis waaye weer wi dafa continuer ne feeg mi ngi continuer di ko gis feeg matagut fukki fan ak juróom rekk na xam ne reegal la waaye nag su demee ba mat fukki fan ak juróom moom itam ci fukki fan ak juróom yooyu daal ci la yem su continuer di ko gis na xam ne feebar la du ko teree dem jàppi di jaamu yàlla di julli ak a woor keneen ki ci toppaat muy ñette mooy alxaamilu alxaamilu it ne nañu bokk na ci ñi nga xam ne ñi dañuy gis regal ci lenn li ñu jàng ci li ñu boroom xam-xam yi jàngal ci téere yi waaw nee ñu euh, alxaamil bokk na ci ñi nga xam ne ñii euh, dinañu gis regal waaye nag dañu caa waxaati ne wal xaalibu fiiha adamul xayd waaye tam dañoo wëlbatiku war neem ku ëmb mën naa gis regal waaye ne li ëpp ci soxna yi nag bu ñu ëmbee maanaam duñu gis regal kon ñaari tomb yooyu rek lañ ci mën a jàpp muy kii ëmb daal mën naa am dina ko gis waaye nee na ñi ëpp ci ñoom bu ñu ëmbee dootuñu gis ragal boobu nee na aktharu ayaamiha baada shahrayni min xam yashruuna yowman nee na bu dee ku ëmb la te bokk ci ñi nga xam ne ñi dañuy gis ragal ne ne su ëmb ba jàllee ñaari weer maanaam bu demee ba am ñaari weer euh, mu commencé di gis règle ne ne euh, boobu ab diggam ñaar fukki fan la maanaam ñaar fukki fan ca lay yem su ëmbee ëmbam ñaari weer tàmbali di gis régal ne ne ñaar fukki fan ca lay yem su demee ba génn ñaar fukki fan yooyu di gis régal mu dem ba ëpp ñaar fukki fan mu continuer di ko gis na xam ne euh, doonatul régal maanaam mën naa dem jaamu ji yàlla di jullee ko woor wa baada salaasati ashurin nag bu dee ëmb boo xam ne bii dafa am ñetti weer bi mu amee ñetti weer mu tàmbale di gis regal salaasuuna yawman la maanaam regalam euh, fanweeri fan la war a doon su ambee ëmb am ñetti weer euh, ay bisam yi muy gis regal fanweeri fan ca la kooku ëmb daal noonu la régalam demee moom itam ne bu fekkee ni daa bokk ci ñi koy gis daal ñi nga xam ne bu ñu ëmbi dañu gis regal ñaa bu ëmb ba amee ñaari weer ay fanam ñaar fukki fan la su ko ëppee doonatul régal bu fekkee ne ëmb na ñetti weer eh, ay fanam fanweeri fan lay doon su ko ëppee doonatut régal ki ci des muy ku ñeent ki mooy al muxtalitatu mooy koo xam ne kii réglam dafay jaxasoo maanaam normalut kooku mooy allati taraddama yawman wa tatatahhar yawman mooy koo xam ne kii réglam ni muy demee mooy su gisee régal tey jii su ëllëgee du ko gis kooku nan lay def ne fa hiya tulfiqu ayaamat dami faqat xataa yakmula laha akthara ayaamil xayd ne kook nga xam ne kii ab règle am dafa normalut ne ne nii lay def euh, bu fekkee ni da koy gis tey su suba du ko gis bu ginnaaw subaa mu gisaat ko nii lay def ne day def bés bu mu gis règle rek mu rëdd ko maanaam mu jàpp ko bés yooyu muy gis règle bi di ko rëdd wala mu di ko lim feeg matagut fukki fan ak juróom na xam ne règle bi jeexagut ci moom mi ngi ci moom waaye nag bis yooyu muy gis règle bi su ko deen wàññi ba mu doon fukki yoon ak juróom maanaam fukki fan ak juróom foofa la ba yem su ko defee nag eh, du ci boole fan yi nga xam ni du gis règle bi waaw fan yi xam ne du gis règle bi du ko limaale waaye bu dee ni da koy gis tey day rëddu rëdd wala mu jàpp ko ne tey jii gis naa ko bu suba su ko gisul day bàyyi ginnaaw suba si mu gisaat ko daa di rëddeet weneen rëdd wala mu jàppaat ne am na ñaari fan bés yi muy gis règle bi la koy eh, lay jàpp ba mu mat fukki fan ak juróom su matee fukki fan ak juróom nag mu xam ne léegi feebar la kon day daal di mën a dem sangu daal di jàpp di jullee ko woor day dem faju ji waaw maanaam ñetteelu laaj bi mooy rek fee mu waxan ca biir ne ndax ki ëmb dana gis règle wala déet mooy lañ ko waxan fee rek mooy gis nga nañ la fuqaha yi maanaam jàngalekat yi fiqh yi ne nañu am na ci ñoo xam ne ñii dinañ ko gis waaye am na ñoo xam ne ñii duñ ko gis te ne ñi ci ëpp maanaam mooy ñi nga xam ne ñi buñu am ëmbee duñu gis règle kon loolu daal mooy li aju ci ñetti laaj yooyu nga xam ne moom la laaj moom suñ mbay juuf beneen laaj bi ci topp suñ Moustapha Thiaw moo ko fi yónnee moom dafay laajte euh, bidayatul adli wa nihayatuhu euh, maanaam day laaj ak maandute maandu daal maandu daal dane day laaj ndax xam na fenn fu mu tàmbalee ak fu mu xam naa laaj bi day aaj gis day aaju gist bu sore sore dafa yaatu lool lool lool waaye liñ ko ci wax daal ci maanaam buñ doon tënk wàllu maandute mën nañ koo tënk ci xadis bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi yonente sallallahu alayhi wa dafa wax ne ne bokk na ci liy rafetal euh, lislaami nit ki daal mu maandu ba lépp loo xam ne lii aw yoonam néew ca mu bañ caa dugg lu mu gis loo xam ne li ay wax la te mu xam wax ji moom yoonam néew ca mu maandu ca lu mu gisin mu di ay jëf te mu xam ne jëf yi moom yoonam néew ca mu maandu ca jëf yooya loolu daal buñ doon tënk laaj bi mën nañ ne fa la tàmbalee fa la yem maandu ci li nga xam ne lii maanaam saw yoon néew ca su ko defee dañ ko naan al adlu moom diddul jawri maanaam ne ne maandu mooy safaanab jalgati maanaam safaanab di tooñ ne ne Euh, ki ko jikkowoo moom moom maandu day nekk ku jub ndax ne moom al adlu muy maandu huwa al istiqaamatu wal maylu ilal xaqi mooy nit ki na jub xocc foo ko gis mu jeng jëm ci loo xam ne lii euh, dëgg la maanaam ne ne maandu daal ki ko jikkowoo dañu naan kooku day nekk ku jub koo xam ne kii foo ko gis maanaam day jëng jëm ca la nga xam ne lii mooy dëgg kon mën nañ ne tàmbale maandute mu ngi tàmbalee ci nit ki góorgóorlu ba fu ñu ko gis fu mën a nekk rek day tey ca mbir ya ba gis dëgg ga maanaam mu jëng jëm ca dëgg googee waaye it koy dañu daal di mën ne kon maandute dal fa mu yem mën nañ ne mooy nit ki foofu la war a yem ba tey rek maanaam dem ci dëgg te bu naree jàll foofu maanaam gis loo xam ne lii lu dul dëgg la maanaam bu ko mënta lijjanti maanaam mu maandu ca kon moom mën nañ ne kon foofu mooy doonu yemukaay ba maandu ca la nga xam ne lii doonu dëgg soo ca dara su ko defee fuqaha am na nuñ ko gisee maanaam jàngalekati fiqh yi dañ cee gis ay mbir yu baree baree bari ñu ne kon mën nañu wax al adlu fi diini wal aqwaali wala afaali ne ne mën nañoo tënk kon maandute daal nga xam ne nit ki sax diine ji muy dund da koo war a dunde ak maandute ay waxamit da ko war a wax ci waaye am ay jëfamitam yëpp da ko war a teg ci ak maandu su ko defee maandu googu sax dañ ne yow jullit bi sax donte bi yéefar la sax maanaam sa diggante moom la ngeen di seq maanu ci maaru nga ko war a teg waaye ki nga xam ne kii yàlla dafa dogal sax ngeen di xuloo seen diggante euh, kooku sax ak maanute moom nga war a doxale seen diggante lu ngeen di xuloo xuloo waaye noon bi nga xam ne bii sam noon lay tamit lu doon doon sam noon da nga war a dawal ak maanute seen diggante waaye xarit bi nga xam ne bii moom nga xaritool yi tamit ak maanute dafa war a daw seen diggante mbokk mi nga xam ne mii dalaa jege ci wàllu askan mbokk moom itam nee ak maanute nga war a doxal seen diggante waaye itam mbokk moo xam ne xañ na da a bokk dara waaye sore ngeen ci wàllu askan sax it kooku it ak maanute daal moom nga war a doxale seen diggante dafay wax ne fal adlu alladi yanju bihi saaxibuhu yowma addini huwa al adlu alladi yakunu fi jamii al xaalaati xadiba al aw radia nee na daal mën nañu daal maandu te fi mu tàmbalee ak fi yem mooy te mooy doon maandu gi nga xam ne kii maanaam mooy jëriñ boroomam bés biñ mooy maandu te gi nga xam ne gii nit ki da koy natt si mboole mbiram yépp maanaam nga xam ne fi mu tàmbalee ak fi yem mooy nit ki su meree day maandu su nekkee ci mbégte merut itam day maandu ndaxte ne ne li anna adadan min annaasi xat yaadiluuna fi xaali rida wala yaadiluuna fi xaalil xadab ndax ne ne li ëpp ci nit ñi day mën nañoo nekk ñoo xam ne ñi ñu maandu la doon ci jamono joo xam ne ji bu ñu gisee lu leen neex waaye buñ demee ba mer dootuñu maandu kon daal nit ki war naa maandu ci mbiram yépp boo meree ak boo kontaanee boo nekkee ci mbégte mooy fa la tàmbalee fa la yem kon ne ne adul insaan ma rabbihi wa ma bani jinsihi nit ki ne ne bokk ci loo xam ne war na ko mooy mu maandu ànd ak boromam maandu te goo xam ne gi boromam la koy séqal muy yàlla waaye itam war naa maandu maandu te goo xam ne gi doomu aadama yi nga xam ne ñoom la bokkal mu maandu séqu ko ñoom su ko defee al adlu ma rabbi an yaabudahu wala yushrika bi shay'an ne bu dee ci wàllu yàlla la fi fang maanu tàmbalee ak famiyam mooy nit ki na jaamu boroomam te bum ko bokkaaleeg dara foofu la maanu teg nit ki ci wàllu yàlla tàmbalee fa la yem jaam fexe booy góorgóorlu di jaamu yàlla waaye tamit bul ko bokkaale kenn ci jaamu yàlla kooku wala leen wala dara wa haza azamul adl ne nag maandute moom buñ ko doon dajale gi ci gën a màgg mooy gii muy gii ngay def ak sa borom mu yàlla bu dee sa bakkan la sa bopp ci yow fa huwa an al insana yaxmilu ma fihi salaahuha wa yakufuha anil qabaih ne bu dee ci sa bopp la yow sax maandute yem sa wàllu bopp fi mu tàmbalee ak mooy sa bakkan bi sa bopp bi maanaam saa su ne yaa ngi koy jiñtal ci loo xam ne lu ko yéwénal la nga di ko jiñtal ci loo xam ne lu ko yéwénal la waaye tam di ko fegal maanaam di fegal sa bopp lépp loo xam ne lu baaxut la fala tàmbal fala maanu tàmbalee fala même bu dee ci sa wàllu bopp bi la sa ji wama xayrihi bu dee ni keneen ku yàlla la wala manam bindee fi laa bëgg a wax maanute mooy an yakuna barisan inda ma yusbihu shaxsu sultaan wa masuliya li shaxsi bokkoon innama yusbihu li shaxsi sultaanun wa masuliya nen bu dee ni keneen la maanaam eh, maandu googu dafa war a nekk lu sax ci yow rawatina nag bu la yàlla jàppale dimbali la ba nga nekk koo xam ne kii da nga jiite danga doon boroom nguur walla nga doon borom responsabilité bu siiw boo xam ne bii am na fuñ la teg ne su boobaa moom sàmmaante googu moom foofu la war a gën a mën a feeñe foofu lañu ko war a gën a jànge ci yow xam ko ci yow ndaxte ne ne li loolu mooy yakunu saxsu mu mutaalaban bil adli akthar ne ne bu fekkee ni danga nga am ku ñuy séentu ci moom daraja walla nga nekk ku jiite mbooloo ne foofu yow yow dangay ngay nekk nga xam ne kii ci jamono jooju euh, ak maarute maanaam ci yow lañ koy gën a sàkku ci yow lañ koy gën a bëgg ndaxte euh, tolluwaayu bi ci nu tolloo rek maanaam ñàkk a maarute maanaam day daal di mën a yomb ci moom lool kon daal maarute daal mën nañ ne fa muy tàmbaleeg mu yem mooy nit ki daal mën nañ ne day góorgóorlu nekk ku jub te góorgóorlu ba euh, lépp loo xam ne lii aw yoonam néew ca mu maanu ca loola góorgóorlu ba lépp loo xam ne lii luy dëgg la mu maanu ca mu maanaam mu nekk ca loola jëng jëm ca loola muy tàmbali ba waaye yem ci it muy yemu kaayop maanute mooy lu du dëgg maanaam mu maanu ca bañ caa dugg beneen laaj bi ci topp te mooy bu mujj ci fatawaab tey bi defe naa mooy mooy mbokk mi àndala sama mag sama goro waaju baax doon ab taalibi doon jullit bëgg lu baax fatawaab yi ñuy def nii moom mu mas a nekk ay yitteem lool wax dëgg yàlla di da daal laaj wax dëgg yàlla bëgg lu baax lool ñoo ngi koy dalal di ko tatagal di ko xamal ne kër gi moom kër ak Seyxul Xadim la te loolu moom defe naa ku yàlla dogal nga dugg ci biir groupe bi rek du jar ñu la ciy wax dara maanaam boo ci defee sa yitte di ko topp ni ñu ko programme déew di nga ci xamal sa bopp dara kon ah, ànda la ñu lay wax ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadin waaw xam naa trop wow nag olof yi ñooy nun wolof baatu arab yi ci bari dañ koy jël yàqu mooy xanzalatu la xanzalatu la xanzalatu nana olof yi moom yi dafa nekk ab yi boo xam ne bii ku ragalan yàlla la ku bëggan lu baax la eh, ku doonoon ab jaamukatab yàlla la loo tax ma li may wax nii muy aw tur dafa am solo ndax jëmm jiini di àndala mii bëgg lu baax lool baax lool daanaka daa toppi tur wa xanzalatu moomu saxaabi yi boobu ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon ab jullit eh, nga xam ne dafa ragalan yàlla bëgg lu baax ba dafa mas fekk jataay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee mu daal di topp mbedd yi moom xansalatu moom xanzalatu ci boppam muy wër mbedd yi naan naafaqa xanzalatu naafaqa xansalatu maanaam moom xanzalatu ci bopp mooy xanzalatu mooy waxal boppam naa xansalatu am naafiq la xanzalatu am naafiq la biñ ko déggee daal di koy wax yonente bi yonente bi daal di koy woo ne ko wax yow xanzalatu lu tax nga yor mbedd i naan naafaqa xanzalatu maanaam xanzala am naafiq la mu ne ko yow rasulullah yow sayduna muhammad man dama gis ne bu nu toogee bu ma toogee fii yow ragal gi may ragal yàlla ak ni may bëggee lu baax ak ni may tiite ak ni may sama xol di tàllee ak sawar ak bëgg jaamu yàlla su ma teewee jàkkaarloo yow daal te su ma jógee fi yow daal maanaam loolu lu ci baree bari day wàññeeku ci man loolu tax muy wër naan naafaqa xanzalatu waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan kontaan ci moom daal di ree ne ko waaw ni ngeen di mel fi man dey su fekkee ne dangeen di góor góorlu ba fu ngeen dem ni ngeen di mel fi man ngeen mel noona day dingeen di dem bay saafaxante ak malaaka yi ci mbedd yi ne ko kon di ngeen dem ba malaaka yi yërmande yi dañuy wàcce ngeen di niyoonteeg ñoom di jàmmanteek ñoom ñu di leen ñaanal mu wax ko Seydina Muhammad wax ko xanzalatu ne ne nag bi ko yonente bi waxee loolu daal mu daal di dem di góorgóorlu ci noonu muy mel ci kanam yonent bi daal mu bëgg léegi fu mu nekk rek muy mel noonu di ci góorlu lool bi mu ciy góorgóorlu noonu ndeysaan xansalatu dem ba loolu ko Seydina Muhammad waxan ne ko mën ngeen a dem bay gisante ak yi si yàlla daal di defal loolu xansalatu muy dajeek malaaka yi ci mbedd yi di nuyoonte ñoom waaye xansalatu ndeysaan yàlla nattu ko defal ko taab gu méttee métti mu jaaxle ci lool mu métti ci moom lool yàgg lool mu jàmbat ko fajkat yi ñu ne ko sa taab gi danga koy ñaas boo ko defee mu dañ xanzalatu daal di ñaas taab ga taab ga daal di dañ waaye jamono yam doon gis malaaka ya waxtu ya ku malaaka ya doon ñëwal moom gisatul malaaka ya mu am ko ay fan gisatu leen mu daal di jooy loolu mu ti ko lool daal di dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko man de dama tiit dama jàq dama jaaxle ndax li ma waxan day dama ci doon góor góorgóorlu ban malaaka yow day dañ ma doon dikkal ñuy nuyonte waaye fan yii day gisatuma leen mu ne ko lu loolu loo def lan nga def mu ne ko man daal li ma fi seetlu mooy am na taab gu métti ma dalan daal biñ ma diggalee ne ma naa ko ñaas ba ma ñaas ko daal laa noppee gis malaaka yow mu ne ko waaw loolu maanaam yàlla dala ko natt woon mu doon natt boo xam ne bii dala bëgg gërëb la euh, ba tax mu teg la natt boobu ba xam di nga ko mën a muñaale ci nii ngay góor góorlu ci jaamu yàlla géeg nit ba tax muy yebal malaaka yooyu ñuy ñëw di nuyoonteeg yow mu doon la nattu nag ba xam yow fan nga toll ci loolu ngay jéem looloo tax malaaka yi ñëwatuñu xanzalatu euh, daal di rëccu ñaas ga lool daal di dem nekkaat ca ba yàlla dikkaat ak nattu ba daal di koy tegaat taab ga mu bàyyi ko nag bañati koo dindi malaaka ya tàmbali di ñëwaat maa ngi jégalu baax a baax euh, dugg gi sama koro sama mag dugg ci liggéey bi dama neex lool ndax dama xam ab tolluwaayam bu baax a baax a baax kon dal bu ko defee euh, laaj bi mu fi laaj moom incha allah ñu jéem ci jublu rek waaw ñoo ngi jégalu bu baax a baax kon xanzalatu day laaj xanzalatu géy day laaj imaamatu zawji zawjatahu wa huwa du waaw xam nga li may wax rek ndeysaan moom ànd euh, dafa defan accident bu métti métti ba yaakaar na ne sax ndeysaan rooga mën na caa jaare waaye gis nga yàlla rek moom ku repp doo faatu ba yàlla dogal tànk bi am jafe-jafe xam ne booy xool li ma doon wax ne sàng rek day bëgg a delluwaat ca turandoom wala muy xanzaratu muy saxaabi yu boobee ak na tom ya waaye terewut noonu mu doon doon handicapé terewut jaamukatam yàlla day jaamu yàlla normal bëgg lu baax euh, dafay laaj ne moom jéem yàlla dafa dogal daal ab tànkam dafa accidenté ba euh, daanaka melut na war a teemel léegi te buy julli moom eh, soxnaam day ànd moom mu di ko jiite muy laaj ba xam moom mën naa jiite soxna si walla déet dañ koy wax ne ko man bihi aahatun tamneohu min al ityaani bi min arkaani salaat kal xiyaami aw juluusi awi sujudi aw xayrihi aw xayriha salla kayfa amkanahu daj na maanaam nit ki moom boo amee benn ngant ci cëram ba buy julli am na ponko yoo xam ni jafe-jafe cër booba tax na mënu ko bu dee moom donga julli moom nu mën a jullee rek maanaam noona lay jullee wa dahabal fuqahaau ila sixati imamati man bihi ahatun tamnahu tamnahu min rukunin min assalaati ida kaana mislahu waaw bu ko defee ñi jàngale fiqh dañ ne ki nga xam ne kii dafa am jafe-jafe laago googu ba am na ponk yoo xam ne yii xañ na bu dee lu mel ni taxaw ba taxawaay bala mënu ko wala toogaay du toog nam war a mën a tooge ne eh, ak jiiteem mën naa wér maanaam ak jiiteem wér na sax la wax bu fekkee ni laago googu da koo tere mu mën a def benn ci ponk yi nga xam ne ca ponk julli ga la bu fekkee ni kamu jiite dafa mel ni moom maanaam dafa am laago gu mel ni moom kon loolu mooy eh, ki nga xam ne kii daal yéen a yem ci wàll woowu moom ku ci mën a jiite rek mën ngaa jiite sa moroom wala buñ dee mbooloo la ñëpp mel noona waaye nag dane waxtalafu fii imamati zil aahati li saxiix ne nag bu dee nit ki am ak laako la ba am ponk yooyu yoo xam ne du ci du ko mën a def normal ne na ñoom jàngalekat fiq yi dañ caa wuute ci ndax bu jiitee dina wér wala du diit wala du wér dañ caa wuute maanaam wuute ga mooy ñii yenn jàngalekat fiq yi ne nañu su jiitee jiite googa mën naa wér ndax am na ngàntal cër bi moom da koo mënatul ñeneen itam Euh, maanaam nga xam ne dagal na nañu ko kon mu mën a jiite waaye ñeneen ci des mooy boroom borom jàngalekati fiqh yi moom dañ ne ku mel nanu daal bu mu jiite kon liñ ci gis mooy jéem ak wuute da caa am te moom soxna am lay jiite te xam naa nu man di rek maanaam mooy tane soxna sax ndax soxna mën naa am la ca war ca jàngam alxuraan maak ya ca des yu ci bari mën naa am du ko man te moom bu ko jiite dina ko ca dina ko mën a yóbbaale daal lañ cey gis mooy jiite googu mu jiite soxna si mën naa nekk wér lay doon ndax jéem borom xam-xam ni dañ cee wuute ñii ne bu jiitee jiite ko dana wér lañu wax ba daganal ko ñeneen ñi itam ne bu mu jiite tere nañu mu jiite kon ñii nga xam ne ñi wéral nañu ak jiiteem ci mën naa jiite taxaaju ñu ci góor ak jigéen kon dañuy jàpp ne kon mën naa jiite soxnaam soosu jéem euh, mooy soxnaam te mën naa am xam naa nam njàngam de mu soxna sa soriwut waaw bu ko defee daal masala boo xam ne bi daal liñ ci jot a gëstu noonu ci téere yi ñuy liir ak yooyu lii lañ ci wax waaye ñu gën cee defaat ab gëstu bu baax a baax rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Yoda, فتاوى